ñoom ñaar jéggi na si yoon wàcc na jël na Tapha Tine dóor na Tapha Tine a ngi dóor ci suuf attention jërëgéen jëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñu ngi leen di jaajafal bu baax a baax am mbégte ak contentement ci ñëw jàkkaarlook yéen fas yéene leen a andil li nga xamante ne bii moo gën a fës ci ëttu yéenekaay yi nga xam ne ñoom ñooy bind ci wàllu làmb tey jii di lëndi le 20 le 28 juin 2021 seen revue de presse bi nag ngeen ci ànd ak euh, huile j'adore di huile bi nga xamante ne bii moom moo gën ci huile yi am na huile am na li nga xamante ne bii moom mooy macaroni am na spaghetti wante am na li nga xamante ne bii moom mooy vermicelle kon daw leen wuti li nga xamante ne bii mooy produit euh, j'adore yi nekk ci marché bi wante tamit ba léegi seen revue de l'arène bi xam ngeen ne dañ ci ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Haut Kayar ndox mi nga xam ne set na sell na neex na am nay ferñeent neex naa jëfandikoo kon daal mën nanoo jàpp ne eau Kayar mooy ndox mi ñuy aar di namm nag sama jigéen sama xarit Ndeye Mbacke xam ngeen ne man ak moom ñoo doon ànd ci revue de l'arène bi mais tey mu nekk ci yeneen yitte incha allah xam naa suba di ngeen ko gisaat. Euh, ñu fas yéene door li nga xam ne moom mooy revue de l'arène bi fi ñu koy dooree mooy combat bi doxoon ci diggante Sa ak Moussa Ndoye euh, amoon euh, samedi bi passé foofu ci arène nationale nekkoon combat bu amateur yi doon xaar. nag nekkoon combat bu neex Sa Thiès li mu wax ci journal bi mooy boobule komba su ma ci daanu woon lu nekk mën naa am mën naa xew ndax combat bi ni ma ko préparer ak fi ma ko tegoon moo sori woon teyit moo kawe woon Moussa mi nga xam ne moo ñàkk boobule combat mi ngi koy feelu ci wet gi nee na kontaanul benn yoon ci waa CNG ndax ni ñu doxalee ci boobule komba moom daal yëkkati na ay kàddoom yàq leen lu mel ni xeme ki nga xamante ne bii moom mooy Sa kon mën na nanoo jàpp ne yoonu làmbam gën naa ubbeeku bu ñu jógee foofu dañuy dem ci Issa yi moom bi doon bëre ak Aliou Seye numéro 2 gannaaw ba ñu bëree cinq minutes quarante secondes ki nga xam ne moom mooy Aliou Seye dóor ko mu daanu mais ci début combat bi ñu gis ne ki nga xam ne moom mooy Issa yi moom moo dirigé woon combat bi ci ay coups ya nga xam ne dox na ci kaw adversaire am dóor ko ko mais nag ay coups perdu la adversaire am génn saako yi Sitor nduur mi doon arbitre combat bi owaat leen jox Aliou Seye 2 avertissement mais bi ñu ñëwaatee nag ci la làmb ji tourné ci la ki nga xam ne moom mooy Aliou Seye numéro 2 tourné carte gi dox ci kaw Issa Pouye dóor ko mu daanu ki nga xam ne moom mooy Omès Diagne di borom xam-xam bu ñëpp ràññee ci wàll sport rawatina ci wàllu làmb nee na. Issa yi ni mu entamé combat bi moo baaxul warul woon dox ci kaw ki nga xam ne moom mooy adversaire am di Aliou Seye numéro 2 ki yëkkati yooyu la kàddu moom mooy Omes Diagne bu ñu jógee foofu dañuy dal ci combat Mame Balla ak mbay Gouye Gui ki nga xamante ne bii moo ko taxawal mooy borom bawal production ñu koy wax Assane Ndiaye mu war a am le 4 juillet fële ca stadium Iba Mar Diop ki ñu koy décortiquer nag di ñu jàngatal boobule combat mooy booy kayre papay jën kayre nee na combat ba nga xam ne ñaari champion ñaa ñoo koy bëre ñaari ndaanaanu làmb ñoo koy bëre kii attaquant la kii day xaar nee na mbay guy gi mbër la ma nga xamante ne bii attaquant la mënul taxaw sax di réfléchir wala muy xaar arbitre day souffler rek mu dox ci sa kaw def li muy def moo xam day daan wala lu mën di am mu dox ci sa kaw mbër la ba nga xamante ne bii espoiru làmb la dafa wane ay preuve am ba agsi fii mu agsi tey bi mu ñëwee ci ki nga xamante ne bii moom mooy mambal la nee na mambal la bi mu ko xoolee xam na ne mbër bu pare physiquement la ba tax na nee na incha allah le 4 juillet mën nañoo gis combat bu neex a neex diggante mambal la ak mbay guy gi bu ñu jógee foofu dañuy jàll ba Gambia ànd ak Luc Nicolaï borom euh, Luc Nicolaï Enco moom moo wootee foofu ca Gambia incha allah le 3 juillet ci face to face bu mag bi am ci diggante Modou ak Ama Baldé di combat royal kon mën naa ne Gambia mën nañoo xaar ay gan incha allah bu ci yàlla àndee le 3 ñaari mbër yi fa yéene ñëw jàkkaarloo foofu noonu ku ci nekk xas-xasloo ku ci nekk wax li ngay àndil sa morom jouru làmb ja di combat ba nga xamante ne bi amateur yi nag. yàgg nañ koo xaar diggante Ama Baldé ak Modou Lo war a am le 25 décembre incha allah bu ci yàlla àndee bu ñu jogee foofu dañuy seeti ki nga xamante ne bii mooy borom 10 sur 10 10 combats 10 victoires su ma waxee loolu nag seen xel war naa dem ci ki nga xamante ne bii moom mooy xele bi nekk fële ca parcelle Assainies ñu naan ko Franc gannaaw ba mu daanee Tyson 2 fan yi paase moom nee na. pare na ngir jàkkaarloo ak ki nga xamante ne bii moom mooy Sa Thiès doomu Double yooyu kàddu nag mi ngi koy yëkkatee arène nationale barki démb bi Sa Thiès di bëre ak Moussa Ndoye nee na moom vainqueur lay bëreel wante vaincu yi waxu ci dara gannaaw ba mu dëkkee ki nga xam ne moom mooy Eumeu seen ak Lac 2 nee na daal fi mu toll nii. ki mu gën a teg bëtam bokk na ci Sa Thiès mi nga xamante ne bii bëri na ba daan Moussa Ndoye bu ñu jógee foofu nag xam ngeen ne weekend bi passé làmb yi macha allah dañoo bari woon dakaar amoon na ay làmb mais dans les régions tamit xam ngeen ne ñu ngi doon tëgg damoon nan fële nga xamante ne bii moom mooy Mbour Géej ñu defal leen fa live bu am doole ñi doon topp ca Leewtoo TV yëpp gis nañ la nga xamante ne bii moom moo fa am suñu làmb nag ñëw bind na nee yëkk ni Diop moom mi nga jiite moom mi nga xam ne moom moo jiite Fata production moo fa doon tëgg li nga xam ne moom mooy troisième journée ki nga xam ne moom mooy général Malika moom moo jël pois lourd bi wante Ganja Fama moom moo jël pois léger bi ñu amoon fa nag 64 litres ci lourd bi 64 litres ci léger bi lourd bi ñu amoon 60 litres ñu bëre ba une heure nekkoon gala de ba nga xamante ne bii macha allah amateurs yi génnoon nañu wante ñi nga xamante ne bii tamit ñoom ñooy waa Mbour macha allah fekk si nañ ki nga xam ne moom mooy Yaxya Joob ni ba ñu jógee foofa ñu jàll ñaaxar xam nga ne ñaaxar tamit amoon na làmb waa ay AIC Belfort bu ñaaxar ñoo fa tëggoon làmb ki nga xamante ne bii moom mooy Mamadou Pouy ñu koy wax Liwi Coor moom moo jël poids lourd ba ci digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy Jibi Saar foofu amoon nañ fa 21 lourds amoon nañ fa 21 lourds euh, ki nga xam ne moom mooy Liwi Thior moom moo jël ndam li daan ki nga xamante ne bii moom mooy Mamadi Sarr am li nga xamante ne bii moom mooy 540 000 francs ki ki ki daanu am deux cent 260 mille francs ñi nga xamante ne bii ñooy ñaari demi-finalistes yi ku ci nekk yóbbaale woon nga juróom-ñeenti junne. jënd ci saabu jënd ci attaay ak suukar yóbbu sa kër ma nga noonu ba ñu jógee foofa ñu jàll Foundiougne ba léegi ci gala de lutte yi nga xamante ne bii moo amoon samedi passé Foundiougne nag xam nañ ne Serigne Ndiaye 2 moo jël boobu boobu euh, boobule gala ñu tegoon fa nag ñaari oto ak mille francs njom di production moo taxawaloon boobu boobule gala de lutte tegoon fa ñaari oto ak 600000 francs Serigne Ndiaye 2 mu ngi daan Doudou Sané ci final bi. Doudou Sané l'enfant chéri de Diofior moom tamit nekk xale ba nga xamante ne bii fan yi mu ngi wane boppam bu baax a baax ci mbapat yi Doudou Sané moo fa daan ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 moom moo ko daan ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, final bi mu nekkoon galaat di lit ba nga xamante ne bii nag macha allah neexoon na ci euh, li nga xam ne moom mooy demi final yi ñu amoon fa ay demi final yu neex macha allah ki nga xamante ne bii moom mooy Serigne Ndiaye 2 bëre na fa génne adversaire am. ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, demi-finale yi ordinateur la daan ci euh, demi-finale yi ordinateur nag dafa njëkkee mbuur ki nga xamante ne bii mooy général Malika daan ko quart de finale mu continuer jàll fi nga xamante ne bii moom mooy Foundiougne foofa tamit demi-finale lan ko éliminé Serigne Ndiaye de moom moo ko éliminé ci beneen demi-finale bi Doudou Sané la chéri de Diofior moom moo génnee aada aada booy bawol bi nga xamante ne bii macha allah moom tamit mu ngi wane boppam fan yi ci ah, mbappat yi kon mën nanoo jàpp ne Doudou Sané ak Serigne Ndiaye 2 ñoom ñoo finaalu Serigne Ndiaye 2 daan ko ba ñu jógee foofu démb fële nga xamante ne bii moom mooy arène nationale Tigre Junior moo fa doon bëre ak ki nga xam ne mooy booy jaxaw komba bu metti combat bu tàng nee naa la combat boobule cin lu baax la woon amuloon ruq buy sedd Tigre bëre na ak Boy Caxaaw combat bu metti booy jaxaaw nag moo dominé woon ci xeex bi mais ni koy waxee gàccey dóor gàccey daan faj na ko ñoom ñaar ñu dem ardo ñaari yoon ñëwaat tigre damaat ardo ñëwaat mais bi ñu ñëwaatee dañoo bëre ba temps bi jeex ci ay avertissement la joxe ndam li ki nga xamante ne bi moom mooy tigre junior bu écrit lamsaar te suñu papa Maxime Bergan andi woon ko bu ñu jógee foofu xam ngeen ne combat amoon na stade stadium Iba Mar ci diggante Bébé Diouldé ak euh, Youssou Ndour Youssou Ndour nag suñu làmb nee na bii mooy première sorteem gannaaw ba papaam génnee àdduna di suñu papa Balla Gaye 1 ñu koy ñaanal bu baax a baax suñu borom yërëm ko te yóbbu ko ca arjanaam ya gën a kawee Youssou Ndour démb bëri combat bu neex digganteem ak Bébé Diouldé suñ borom defal ko ndam ñu bëri 3 minutes dix secondes nekkoon combat ba nga xam ne ñaari espoir làmb ñoo ko doon bëree ñaari ndaanaan ñoo ko doon bëree gannaaw ba ñu euh, bëree li nga xamante ne bi moom mooy trois minutes dix secondes mu nekkoon combat bu neex nekkoon combat bu metti wante tamit xam nga ne démb Sidi Diakhaté ma nga doon tëgg foofa ca Mbour assurance ak Gambien assurance nag assure na digganteem ak Gambien daan ko jël ba nga xamante ne bii amul benn werante foofu la woon ca stade municipal bu Mbour Géej euh, ki nga xam ne moom mooy assurance daan Gambien bu bul faale Gambien nag toog na presque mën na ne ñetti at bëriwul ki nga xam ne moom mooy roog mbalax la mujjee daan mu nekkoon combat ba nga xam ne Siri Jaxate Jaxate Kabayeri moom moo ko taxawaloon foofu lay ca euh, Mbour assurance nag fi mu toll nii nee na ci ponkali la bëgg ñu jox ko ndax fi toll nii jot na ñu jox ko ponkal yi mu bëre ak moo mu bëre ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy ponkal yi loolu moo nekkoon seen revue de l'arène bi ñu leen andiloon fii ci Leewtoo TV Mbaye Babacar ngeen ci andiloon di leen jaajëfal bu baax a baax di leen dig daje incha allah beneen yoon wante bala may tàggatoo tey xam ngeen ne revue bi dama koo may la première dame la puissance kooku mooy Amina maane ñu naan ko madame fay série Pape caalis fay kooku mooy yaayu Ablaye ak ki nga xamante ne bii moom mooy Fatima ak Yaande aaw buuru këram nee naa la aaw ba nga xamante ne bii macha allah bëgg na ay mbokki jëkkëram bëgg na ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy ay xariti jëkkëram ndax ni ma koy waxee bu xataloon rek mu xat wante macha allah yaatal na borom cere ju neex jàng noonu macha allah barki démb ah Amina. yàlla na si jàmm yàgg kontaan naa ci yow bu baax a baax séeri Pape Thialis fay yaayu Amina euh, ak ki nga xamante ne bii moom yaayu Amin yaayu Ablaye ak ki nga xamante ne bii moom mooy Fatima ak Yande bég naa ci yow di la wax ne yàlla na si jàmm yàgg aaw buuru këram xam sa xol xam sa xolub jëkkër aawo dallaxle nga bég naa ci yow bu baax a baax di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee beneen yoon ci beneen revue de l'arène jageen jëf long, taking these I ñoom ñaar saakees ñoom ñaar jéggi na si na jël ngi dóor ci suuf. attention saakees ak ñoom ñaar xeex ñoom ñaar xeex nañu attention kaw saakees boo ñaar daan na